Bienvenue sur Salam Vision. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد ba léegi rek euh, daanaka émission bi gis ngeen ko comme ni ngeen ko seetaanee mais ba léegi témoignage bi ci la am lu ndaw loo xamante ne moo lañ ko bëgg waxtaanee ba léegi ci sa waa ji ki nga xamante ni mooy mooy euh, mbokk taale bi nga xam mu ngi fi di fi jaay tey mu am kàddu yoo xam ne da ko yëkkati seede ko tamit ci yow parce que nee na da nga ko fee dalal lan gis si moom ba tax nga dalal ko bàyyi ko fii mu nekk buntu place di fi jaay café aouzu billahi mina sheytan rajim bisimillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ay ñaari waajur di sant Serigne Touba bu baax di sant Cheikh Saliou Mbacké waaw ñun ay murid lañ te ay taalibe rek lañ yàlla boole ñu bos man xam naa ko bu yàgg fa la ne woon di fa jaay moom fa nekkee di fa jaay mu am fa ay jafe-jafe amul fu mu teg cantine bi ma woo ko ba mu ñëw ma ne comme ñoo bokk Serigne tubaa gis naa ne fii boo fa tegee cantine bi yàlla mën na cee def teg loxo bi ma ko doon wax sax boobu moom yaakaaroon ne fii war na fi mën a toog avancé moo ko ci sonn ñaari yoon mu dem ba amul fu mu ko teg finalement mu teg ko fi wax dëgg yàlla mu nekk fierté ci ñun ndax ñun ay murid lañ te luñ sañoon lu ñu am rek dañ koy bokk ak mbokku taalib yi ndax àdduna daa amul solo jaar-jaar bu gàtt la ñun ñëpp dañuy ñaan yàlla ku si nekk am loo xam ne day ëpp lii waaw ndax ku dul yaatal kenn kenn du la yaatal waaw nii daal moom la ñu doon mu nekk sama rakk ju baax na wax dëgg yàlla moom fi nekkee ba tey nekk bu rafet lañ fi nekk waaw nekk bu rafet mu jox ma cër gis ma kaa gis mu dugg ci loo xam ne liggéeyam la am jàpp njabootam lu mu am bokk ak ay ay bokk ak ay njabootam loolu lii daal laa xam ci moom tey jii ñu gis ni yow it euh, yaa ngi sa bërëbu liggéeyukaay yaa ngi def lu gën a jafe ci àdduna muy couture yaa su borom dogale tamit am na loo xamante tamit ñu ngi la koy dàkkandale mooy ci li nga xamante ne mooy di seex bi mm. jëmm ji nga xamante ne mu di sa jëmm ji yaa su borom def tamit ñu am leer tamit bu ñu def ci yow tolluwaay bi ak gëm-gëm bi nga xamante ne ci nga nekkoon ba yàlla suñu borom dogal tey ñu yëkkati Cheikh Goor tey def def ko ci yow bi nga defee ci yow ak léegi ak mbokku taalibe yi nga xamante ne say taalibe lañ lan nga leen di digal waa avant loolu dafa am lu jiitu Cheikh bi parce que ñun dañu ne ay doomu aadama sama yaay mi ngi tudd Oumy Ba sama papa mi ngi tudd Massamba Sow bi jàng jotee dem nañ jàngi ñu jàngee tamit xëñ na sorowuñ ci njàng mi bi jàng métier jamee dem jotee tamit ñu dem jàng métier ñu jugal ñu ci ñuy wax téyër Dakar ñu si nekk di si nekk ba yàlla dafa am ñu am suñu métier mais li waral cëru seex boobu ngay wax dafa am koo xam yàlla dafa ñu boole moom mu ngi tudd Cheikh Moussa Diakhaté mu sëriñ waaw mu sëriñ Saliou mbake yàlla def ko muy ñoo xamante bi ñoom ñëw wuyu woon sëriñ sëriñ Saliou Mbacké atum 1991 Gorba yàlla def ñu xamante suñu benn atelier bu ñu nekkoon fee mu fa ñëw nekk suñu magum taalibe bi ma ko daan gis si place bi nag bi ma ko xoolee mu doon koo xam ne nitu yàlla la mu doon koo xamante ne xam naa ne kii am na lu suñu borom def ci moom leer gi ak macha allah di muy waxtaane Serigne Touba ma commencé di ko fréquenter bi ma ko dee fréquenter boobu man maa ngi sax ci ay sayer ma commencé di fréquenter mu commencé maa lu bari ci lu jëm ci ay tur yàlla xëy di demee noonu ma gën a avancé ci moom bi ma koy xamal tamit doon naan naa nit ku naqari deret doon naa nit ku gaaw a mer léegi ma gis ne kii maa ngi koy fréquenter mi ngi may dugal ci loo xam ne loolu mi ngi wàcceeku ci man ñu gën a am affinité ba yàlla dogal cër bi nga xamante ni tey ànd nañ ba mu xamal ma ci turu yàlla lu bari xamal ma ci asraar lu baree baree bari ba yàlla def cër bi tàbbi ci man mu mu mu seexal ma. nii la seex gi demee. waaw waaw alhamdulilah ah loolu sax daanaka buñ koy xool sax. loolu sax émission la waroon doon. na parce que loolu xolu mbégte la. waaye teewul nag dinañ ci gën a xuusaat. ngir gën see waxtaanaat léegi ki nga xamante ni moo di sa waa ji. waaw loolu sax dama sa papa Sam am na lu ñu ci waxtaanee woon. moment bi nga xamante ni ñu ngi ko doon def daaw ci parce que ñu ma seexaloon euh, daaw heure bi 10 juin. ren lu tax sax manifestation yi moo tax do wéyaluñ cant gi. ndax dañ ko waroon a wéyal rey ci ay nag sant ci Serigne Saliou Mbacké. ndax seex du lu moom jour bi nga xamante ne waroon naa def kii moom lii luñ luñ waroon yàgg émission bu ñu waroon yàgg ba def waaye xëy na suñu borom ni la ko doxale waaye xëy na du ñàkk bés dina ñëw ñu gën ci defaat émission bu def émission man maa ciy ñëw. wax lan mooy dayoog seex bi ak lan mooy mbóot bi ak lan mooy mbir mi fan la fan la fan la mbir mi jógee. non loolu moom loolu moom dinaa la seex bi jubee ak loolu bu boo bu sawaa buñ a la baatinu seex bi ak la nan nan nan la demee. non moom si kattanu yàlla maa ci xas sama tàkk tubay sama baay moom léegi nee ko da ngaa dama ko toog nee eh. léegi nag doom jee ñëw jël lenge yi waaw man maay doom ji maa ñëw jël lenge yi si kàttan yàlla dinañ ci dox waaye nag xool sedd na parce que waaw xool sedd na mhm. parce que tey ah sa waay kat wax dëgg fa yàlla mhm. gis na jàppale bi nga xam ne jàppale nga ko mhm. taxawaay bi nga xamante ni yaa ngi ko koy defal gis na ko teewul tamit gis nga doomu adama bu la yàlla dimbalee ay doomu adama dimbali leen ak nu mu am fépp foo toog dee ko wax fépp foo tool dee ko sant parce ëllëg ci biir ñoom ñooy taxawa moom dafa amul fierté moom wax dëgg yàlla yàlla boole nañu mu doon nit ku baax man mi di wax ak yow yenn saa sax damay am ay jafe-jafe ñëw damay ñëw làmb poosam la fa nekk ma jël ko dem xam kon loolu ànd bu rafet la mu doon tamit nit koo xamante bas yaru bas am na taalibe bas xam ne àdduna nangu naa liggéey innovation yoo xam ne yàlla daf ñuy dénk xéwal ñu dimbali ñun suñu yoon ñu ci bëgg liñ liñ bëgg dëgg suñ si suñ dox mooy yàlla denk ñu ay xéwal ñuy dimbali jom jom aadama yi xam na nag ñu ngi ci waaye fuñ ci bëgg àgg dëgg dañ yàlla lañ koy ñaan mu dénk ñu xéwal yoo xamante ni day doon xéwal yu yaatu ñun luñ am te na nañu ko bokk maanaam mbokk taalibe yi yàlla buñ ko am waaw ñun loolu la ñuy ñaan yàlla nag am nu lu mu fi def ñu ngi suñu métier bàyyiwuñ ko ba tey di liggéey waaye ci wàllu baatin tamit am na loo xam ne suñu ki nga xamante ni moo ñu defaatal cër bii am na lu ñu yenk wal lu bari loo xamante ni tey jii nii man tey ku boppam di métti su ma su ma taree day sedd ku rab jàpp su ma su ma ko mën naa koo dindi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen mun fi waaw kon loolu xaju si émission bi émission la boo xam ne dañ ko mën a gër a mën a yaatalaat loolu moom loolu moom si kattanu yàlla du ma xaar sax muy sori maa ci xas sama tànk tubay du ma génn ci biir semaine bi te yaataluñ ci loolu incha allah rek bas daal nit ku baax la nit ku nangu uf njabootam li ma gën a neex ci moom jàmbaar la ndax woon naa liggéey tabaski day jot mu jëndal xaram njabootam xaram mu rëy lu mu am jox soxna soxnaam te man loolu rek laay nawee nit na yaayam te loolu rek nga am solo waaye loolu yëpp boo gisee lu ko lu ko waral nag dañuy sant yi nga xam ne moo ñu meññ muy mère Oumy Ba nga xam ne moom jàmbaaru fàkk tëdd la jàmbaar dëgg la mooy suñu yaay ju ñu nekk mère bu baax mère bu am yërmande yàgg ñoo taxaw fu ne kon ñun lu ñu mel rek dañ koy sante suñu waajur mu doon koo xamante ni bañ ko xamee bañ juddoo ba léegi nii daw rek la xam ñu ñaan nag suñu borom dénk ñu xéwal yoo xamante ni mu dacc ñun ñu ñu fay xam ne mënuñu koo fay sax waaye waaye ñu ñu ñu ñu ñu ñu bëggal ko balaa bu ñëwoon ginnaaw yóbbu ko màkka teral ko teral ko moom mooy suñu lépp mooy suñu gàllaaj mooy suñu lépp maire bu baax xañ na fekkoo ko fi boo ko fekkoon xam naa du sa papa sama wëlëre la ñoo bokk fii di fréquenté ñoo sëñ Cheikh Oumy mu nekk koo xam ne taalibe la di jàmbaar nangoo liggéey sam daal mention spéciale à moom a baax a baax kon xool sedd na xol sedd na lii ku dul jàmbaar doo ko mën a am nit ku gëmul sa bopp doo ko am nit boo nekkul boo tegul ci yoonu dëgg ak ci yoon bi nga xamante ni mooy li yàlla suñu borom wax doo ko am kon suñu waa ji gën a la góorgóorlu suñu waa ji gën a la am jom parce que lii rek mbégte la kila jàpp la ba tax nga yegg si fii nga taxaw tam di ko sant moom tam mu ëlbatee kuwaat tam yëkkatiwaat tamit kàddoom tamit di ko ci dugalaat kon yaakaar naa ne loolu mbégte la dernier kàddu yi ñu bàyyi la rek. xanaa di sant di gërëm rek. di sant bu baax di jul ci yant bi. di gërëm Serigne Touba bu baax di ñaan daal euh, su réew mi yàlla def fi jàmm élection yi ñu jëm yàlla moo xam ki gën ci réew mi yàlla na ko yàlla tànn njiit yàlla moo koy tànn yàlla mooy xool ku ko neex mu ne lii moom mu def ko président ne nit ñi dal te ànd ak dal ànd ak yar ànd ak teggin tey dimbalee dimbalee dafa am solo. gis naa benn booy boo xamante ni mi ngi def innovation bu mag ku mel ni man sax ay feru way ay saar yooyu du sama affaire mooy booy wàllu sekk booy bu ma neex la ni mu ma neexee mooy maanaam li muy def ay tabaski bu jotee muy dimbali ay doomu aadama man dama bëgg nit ñu mel ñi am na ñi dimbali ñu amul. parce que loolu dafa am solo yàlla ku mu jox lu am na loo xam bu la ko joxee dalaa séddaloo soo amee ngay dimbali doomu aadama nit dafay dimbalee loolu dafa am solo àdduna loolu la fi ne soo amee yàlla dénk la da ngay dimbali doomu aadama yi man loolu laa gëm booy waali marché social moom ñu ngi koy ñaanal yàlla gën koo yokk kattan donte sax li mu nekk ñun intéressé wu ñu affaire saayar la waaye vraiment maanaam jàmbaar la ci côté boobu mu nekk ñun ñun ku koy bëgg lañ ci côté boobu ñi am daal nañ dimbali ñu amul su ko su loolu su amee rek la maam waali fara maareen kon gëmal sa bopp waali fara maareen gis nga àddunaa ngi ni yaa ngi def ay kilifa ñooy toog naan la ci li nga nekk nekk ci kon continuer di def sa lu baax kon Wally am na loo xamante ni kon bu ko nit ñi di wax sa ginnaaw jàppal ni baatu ginnaaw la baatu ginnaaw la waaw baatu ginnaaw la rek yàlla fal ñu fiir la ndeysaan waaw na gën a góorgóorlu rek man ko koy bëgg laa Cheikh Maodo macha allah macha allah dégg ngeen ko nee na kilifa gi kon wax na lool kon tey ji lii lañ leen indi lool kon yàlla na jàmm am ci réew mi man ak yéen ba beneen yoon ci benn émission boo xam ne moo di tekki wala sidina wa mawlana muhammadin bienvenue sur Salam Vision